mbokk mi jigéen bu amee doom bu doom ju juddoo rek sopp nañu ko jàng saaru inaan sa naahu teg ca noddu ni ñu ni ñu nodde rek nga noddu tifli ko ci noppam ndeyjoor ba daldi li xam tifli ko ci noppam ba loolu gone guñ ko defal yàlla dana ko musal musal ci pakki diine yépp maanaam mooy yàlla yeeg yu bon yépp yàlla dana ko ci aar ba du ko mën a def sopp ji itam gone guy dooru juddu lu saf suukar jiitu ci moom lu mel ne lem wala tàndarma ji ñu tëcc ba mu nooy ñu xooj ko wala muy suukar sax ñu fexe ba mu jiitu ci gémmiñam loolu lu ñu soppare ci gone guy door a judd sopp nañu itam ñu bindal ko sooratul xàqa alxàqatu raxas ko defal ko ko toqental jël ci tuuti rek ay toq yu ndaw rek mu jiitu ci gémmiñam sooratul xàqa sopp nañu itam ñu bindal ko sooratul baladi laa aqsimu bi asil baladi takkal ko ko ab téere buy dooru juddu ku am doom nag dis na sopp ku ko tudd waaye bu amee juróom-ñaari fan juróom-ñaari fan yi nag diisu ci limaale bis boo xam ne judd na ca gannaaw fajar fajar ji mu jëkk a fekk ci àdduna daal la ñuy lim ba ci juróom-ñaareel ba doon bisu tudd ba fajar yi itam diisu dis na ko limaale bu maaseek fajar muy judd ñuy nodd nodd gu mujj dis na ko limaale waaye gannaaw gannaaw fajar nag moom lañ wax gàtt biñ koy tudde nag bu yoor yooree ñu rey ko ba ba di su waaye di su rey bu jant fenk gul wala gannaaw bu jant soo yooyu ñaar luñ ci def ak rek lay doon waaye du doon tudd sopp nañ itam bu ñu koy tudd tur wa dégg gàtt ba bu dee ay seex itam ku ak gàttu boppam sopp nañ itam bu ñu ko watee ñu saraxe lu toll ne diisaayu kawar ga ci wurus wala ci xaalis watu gone ga itam wat bobba mo wara jitu a ga ndawal ga itam dis na ja lek dis na ja saraxe ta balaa am tudu dis ci saraxe ba nopi dom je itam diisu ko taqal deret ja lolu aada la waye du diine ku jiddole ku judduwaaliwul bakkan nak ak ku faatu bisub tuddu ba disu len rayal dara disu len rayal ben waaye nag dis na leen tudd bala ñu leen a denc buñ faatoo koo xam dafa am doom nag te yàlla natt ko ba amul xar mu mu tudde du tee mu tudd waaye boobaa nag waxtu ko neexee rek mën naa tudd waaye yoor yoore ci gën mbokk yi booy tudd doom bu ñu andee xale ba bala nga koo tudd waxal lii bismillahi rahmaani rahim allahuma laka alhamdu ala ma aatayta wa awlayta wa asdayta اللهم سدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا توصل احدا علينا وباسمك الكافي اكفنا اللهم اجعله برا تقيا ولا تجعله فاجرا سقيا تفلكو دور النود نك تا نوبم جوربا تود تور ونكو تودنا لا دالي لي خام تا نوبم تا موي با يا بارو جوروم نياار يا رخيبو جوروم نياار آه، يا رشيدو جوروم نياار innaa anzalnaahu ñetti yoon noonu la ñuy tudde doom benn benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmanteef wala lenn benn jublu pour sëñ